ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi di topp suñu chaîne bii di IYAT TV ginnaaw loolu ñu leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di ñaan yàlla mu def jàmm ci réew mii di réewum senegal tey nag dama ñëw ci wax leen Macky Sall pexe yi nga xam ne moom la nekk di ko nas rien que pour jéem a pousse li nga xam ne mooy élection présidentielle 2024 yi ndax xam ngeen ne Macky Sall bi nga xamee ne mi ngi def déclaration di wax ne du bokk ci élection yii maanaam da koo wax ba pare réccu ko ñàkk pexe taxoon mu wax ko ak itam sénégalais yi nekk ci noppam bi troisième mandat du fi amee troisième mandat du fi amee troisième mandat du amee mu dem ba solo slogan boobu soof ko booy ay noppam mu ne léegi xaaral ma defal leen ne leen du ma def troisième mandat mais du lu mu gëm bu doon lu mu gëma xam ngeen ni du doxalee nii muy doxalee nii ma wax leen li tax ngeen xam ne dafa bëgg a pousse élection yi te bëgg koo jaare fenn fudul ci kii di Ousmane Sonko ndax xam na ne sénégalais yépp moom lañ bëgg ndaw ñeeg mag ñeeg góor ñeek jigéen ñeeg ñëpp Ousmane Sonko lañ bëgg moom la ñuy waxtaanee mu ne nag xëy na su ma jàppee Ousmane Sonko bii nga xam ne mooy yaakaaru Sénégal ji peut-être Sénégal dana tàkk te dana yëngu te su boobaa danaa mën a am ngan di maami occasion pour pousser élection yi mu ne xaaral bi nga xamee ne Ousmane Sonko jugee ne Casamance di ñëw fi nga xam ne nii mooy dakaar ñëw ba jub Tamba xaw ma Koungheul police ak gendarmerie daw gàttandu ko jàpp ko dugal ko seen oto loolu ban sens la am wala ban njëriñ la am koo xam ne Dakar la jëm si dawut daayut ñëw ko indi ko fii nga xam mooy cité kër góor gi këram daal di koy tëj ci këram wut ñu koy garder maanaam barricade ko pendant cinquante cinq jours police gendarmerie ku ne ñu yóbbu la fa maanaam mel na ñoo xam ne dañoo jëm ci euh, base terroriste di ko surveiller pendant cinquante cinq jours ci loo xam ne du benn dogal dogalu juge du du du amul benn ordre boo xam ne ni maanaam wax na ne nañ barricade Ousmane Sonko du benn loi bu ko wax lu dul jaay doole gu Macky Sall bëgg a def ne xëy na nag su ma barricade Ousmane Sonko cinquante cinq jours Sénégal yi nag moom li ma leer mooy danañ génn pour taal dëkk bi te su boobaa ça fait pour man ma mën a def li nga xam ne mooy li ma bëgg léegi. mu gis ne barricade na Ousmane Sonko këram cinquante cinq jours benn sénégalais lijjantiwu ko faalewu ko xoromalu ko mu defa defa def gis ne lii ça ne marche pas marsul sénégalais yëguñ sax ne Ousmane Sonko barricade dañ ko lu taxaw di leen kaañoo ak di leen yuuxaloo fu ñu génn ñu ya ñu saaga leen ñu ne léegi nañ dindi barricade bi Macky Sall mais il faut mu amaat beneen plan damay xool bu gën a transparent maam bu gën a leer boo xam ne nii sénégalais yëpp danañ xam ne damay jaay doole xëy na kon su boobaa danañ génn xeex sénégal yëpp bu ñu xam xamee Ousmane ko mii dama koy jaay doole dama koy teg injustice su boobaa xanaa dañ gën xeex nag ndax moom lañ bëgg mu ne léegi damay xool lu ñàkk fayda ma jiñ ko ko lu waye ma jiñ ko ko daan léegi xaaral léegi ma jiñ ko li nga xam ne mooy euh, ma jiñ ko li nga xam ne mooy euh, sàcc téléphone ma jiñ ko li nga xam ne sàcc téléphone mooy sàcc téléphone léegi daal di ko jiñ sàcc téléphone daan loolu moom force sénégalais yi jug réagir force sénégalais yi ju xeex ndax su ma ko jiyee sàcc ba pare moonante yóbbu ca kaso ba sénégalais danañ danañ ko jéem a fekk ca kaso ba pour jéem a taal dëkk bi parce que boo gisee sax li tax mu jël Ousmane Sonko yóbbu ko fële ca Sébikotane yooyu yëpp am na ay yu bari yu mën a wax mais naa ko ndësani noonu léegi mu ne sénégalais yi moom force ñu génn xeex ndax njaay doole gi moom leer na leen ne lii du dëgg du yoon li ma def nii waaye li ma bëgg rek mooy juste suñu génn xeex taal dëkk bi su ko defee ma mën a am ngan di occasion pour gën a mën a pousse élection yi mu gis ne boobu encore une fois ça ne pas jàllul sénégalais lijjanti wuñ ko faale wuñ ko yëguñ sax ne jàpp na Ousmane Sonko te xamul ne jamono ji nga xam ne mu ngi jàpp Ousmane Sonko Ousmane Sonko mi ngi woon ci en état de contumace te ab contumace dañoo wax ne bu ñu la jàppee daan yi ñu la daanoon dafay narmeelu yàqu na kon atte bi nga xam ne attuñ ko Ousmane Sonko ci Adji Sarr atte boobu yàqu na bu yàgg a yàgg te li ko yàq sax dafa bari bokk na ci àtte boobu am na ñaari appel en même temps jàpp nañ ci ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yóbbu ko kaso kon àtte ba yàqu na bi nga xamee loolu am na Macky lool loolu doyutu ko mu ne Sénégal yi nag senegal yi nag man ay naa naafiq dëgg lañ Sénégal yi hypocrite lañ daanaka yii. dañ maa bëgg a jaxase ak àdduna sama plan yi yëpp marsul te bu njëkk dañ daan taxaw fii bu ñu woowee Ousmane Sonko sax ñoom ñëpp ñu génn daali pono université ku nekk di xeex di marche def nangam nangam tey ma def li ma ma def li Ousmane Sonko defuñu dara non lii am na lu ci laxasu lii am na lu ci xew lii am na lu ci xew ginnaaw bi nga xam ne loolu yëpp jaru bu ne léegi xaaral daal ma tas passif ma tas passif léegi sama yoon nekku ci daal di xëy un bon jour bind benn décret daal di daal di daal di tas passif daal ne lii moom bu ma ko defee moom bul sonn moom force Sénégal danañ génn raag moom raag bi moom day tar moom kay dañuy xalaat ndax ñaata jour la wala ñaata weer waaye raag moom dana am moom mu tas passif li ci gën a doy waar mooy boobu sax a gën a ñàkk xorom moom tasum tasum passif bi ñu baree bari ci sénégalais yi yëgun sax ne tasif passif euh, tas nañ ko billaahi kenn lijjantiwu ko ñàkkal ko fayda gën façon ñàkk fayda goo xam ni Macky Sall gën a merati gën a merati affaire yi gën koo naqari mu ne daal man gis naa ne daal lii may def nii moom sëñ bi soof na Sénégal yi ta ta ta maanaam gis naa ne marsul xaaral il faut ma dem ci nday mbili gi moom di ko di ko teg lu metti moom muy Ousmane Sonko daal na léegi Ousmane Sonko fexe indi ministère ba moom tuddee ministre de l'intérieur ah, ba fi newoon góor sax ministre de l'intérieur ba Antoine Félix Diome ne ko fexeel nga bind këyit boo xam ne ni day wane ne Ousmane Sonko rajje nañu ko ci li nga xam ne mooy fichier électoral bi ci koo xam ne atte biñ la atte jeexul en même temps même bu fekkoon ne jeex na sax contumace lañ laat la lañ rek yoon atta ba day yàqu ñu bind benn këyit daan na léegi rajje nañ ko ci li nga xam mooy fichier électoral bi Sénégal yi kenn réassurul kenn faaliwu ko ñu ne Ousmane Sonko du bokk journaux yeeg ñëpp di xëy di ko mbamb di wax Ousmane Sonko du bokk rajje nañ ko nangam nangam nangam nangam nangam nangam avocat yi Ousmane Sonko ñu leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di leen ñaanal yàlla mu may leen gudd fan ak wér wallaahi bu leen yàlla fayee ñoom ñëpp àjjana lañ jëm barke alxuraan li commencé ci métti si réeki lay door li ak ñi ànd ak moom ñëpp yàlla na leen yàlla fay ñu def li nga xam ne mooy recours dem fële ca tribunal bu si ngeen soor yàlla def ñoom ñu defoo ñu dem fa amuñu benn lay boo xam ne ni mën nañ koo layal ci li waral ñu génn Ousmane Sonko ci fichier bi avocat Ousmane Sonko ak wax fa lu leer naññ ba benn bi diw ba cëg ñu ne nag léegi juge bi ne Ousmane Sonko nañ ko dugalaat ci li nga xam ne mooy fichier électoral bi très rapidement possible parce que lii ngeen fi wax nii wërta man a génne Ousmane Sonko ci li nga xam mooy fiche fiche électorale bi ñoom ñu lànk Macky Sall leen lànk leen bañ leen donte justice moo ko wax malgré tout maa waxoon ne li ma fi dese du lenn lu dul bépp décision justice bu wàccati danaa ko appliquer comme ni ko sénégalais yi di xaaree ci man danaa ko def bu neexee danaa ko def bu naqaree mais nag Ousmane Sonko taxul may wax décision Ousmane Sonko moom àdduna bépp bu ñu dañoon jox ko dëgg moom yen jàpp leen samay ordre lu mu leen wax def leen loolu Ousmane Sonko bu leen ko jox ay fiche de ca Ndéla lank lànk ne du jox Ousmane Sonko fiche de parrainage juste pour di provoquer waat Sénégalais yi ba xam danañ génn xeex rayante taal dëkk bi jaxase foofu ñu gis ne effectivement Sénégalais yi pas encore seen pexe yi marchul ñu ne xëy na Sénégal dañu dañoo am yaakaar parce que gis nañ ne daal maanaam euh, li waral xeexuñu jàpp naa ne lii dafa desee leer seen bopp Ousmane Sonko du bokk laa leen wax du bokk laa leen wax te xeexu leen Ousmane Sonko du bokk. joxuma ko fiche de parrainage am du bokk sénégalais yi toog croiser les bras parce que gëm nañ ne ak lu mën a xew Ousmane Sonko dafay bokk ndax sénégalais yëpp ñoom foofu lañ ko kal rek Sonko day bokk ak focus 2024 lu ñu mën a def rek ñu ne Sonko day bokk. léegi nag ginnaaw bi nga xamee ne ñii di waa Sénat encore nga xam ne ñoom ñoom ñoom la ñu dénk lu jëm ci mbirum élection yi ñoom dem nañu fële nga xam ne mooy ca Sénat. confirmé waat li nga xam ne nii moom la cande moom moom la moom la sama si fay waxoon nee nañ jox Ousmane Sonko li nga xam mooy fiche de parrainage am ñu wëlbatiku waat encore refusé ko pour wan te loo ci xamut Sénat ak justice ñoo ëpp doole téeméeri junni yoon maanaam Thiendella Fall mais wala boog DGE gee DGE amuñu benn pouvoir bu gën a fort lii di euh, lii di di justice wala maanaam di son boo xam ne bàyyi ko na fa ci Sénat nañu bàyyi seen tappale yeeg seen caaxaan yi ak fowe gi ñuy fowe sénégalais yi sénégalais yi waye di wuñ ba tax ngeen bëgg leen a nii beneen bi ci topp mooy ginnaaw loolu yëpp am na gis nañ ne sénégalais yi yëngatuwuñu xeexuñu ah ñu ne nag léegi il fallait que ñu jéem a indi preuve yoo xam ne ni daal li ñuy wax duñ ko teg fenn su ko defee boobaa Sénégal da nga xam ne dañuy jaay doole bu ñu xamee ne dañuy doole nag xëy na nag danañ xeexaat ñu ne léegi Ousmane Sonko. daa nekkoon état compte max compte max ba jeex na kenn du ba jeexul mais jàpp naa ko tëj naa ko raje naa ko léegi loolu leer xeex leen sénégalais yi xeexul. Thiendella gën def benn déclaration la la la la la la la la gën def benn déclaration daa ne li tee mu bokk damaa jot benn këyit bu bàyyi ko ci ministre bi mu ne Ousmane Sonko na génn ci fichier bi léegi ab décision justice dugalaat ko xanaa kon kay ñaari décision justice bu ñu wàccee ba nga xam ne moom mujj boobu la ñuy ndax ñoom ab waa kër Ousmane Sonko appliqué woon nañ bi ñu ne raje nañ ko ñoom dañoo dañoo nangu dem def seen recours léegi juge bi dugalaat ko ñu lànk nee nañ décision justice moo ko génn woon mais décision justice dugalaat na ko ñu lànk ne duñ ko dugal xam nga ne kon loolu léegi loolu jaay doon la Macky Sall li mu bëgg mooy pousse élection yi parewul sax pour dem élection dafa bëgg a taal dëkk bi ci jaay doole dafa bëgg taal dëkk bi ngir maanaam élection yi du am mu toog ba jëmmi jamono ju ko neex muy soo a tëgg élection loolu Sénégal yi nand nañ ko bu yàgg yàgg yàgg Macky Sall delloo sil sam xel nguur buy jeex jeex na bàyyi sa yëfu goree di yii sa yëfu ñàkk kóllëre yi sénégalais yi jiwuñu la lii amal ngor ak jom ak fulla ak fayda ak personnalité ak dignité lii du yëfu président lii du yëfu nit ku digne fi ne amatoo benn crédibilité ci kanam sénégalais bàyyil jàmbur bi mu dem bokk ci élection yi ko day bokk par A ou par B jërë ngeen jëf ñu leen sant di leen gërëm